ak képp ku bëgg lu baax nga xam ne euh, nataal yooyu loo ci def euh, di nga ko di ko gisaat ndax sëriñ bi moo mel noonu amul tànki gannaaw euh, niñ koy waxee saa su nekk sañ am kon mu mel ne mbokk taalibe yaa ngi wéy di barkeelu et puis ni ko alaaji Mbàkke Fay doon waxee sànq muy jëwriñ boo xoolee taxawaayu sëriñ bi jàngal nañu lépp ci col gi taxawaay bi lii dafa rafet dafa neex waaw ci humilité bi ceddo naan ci grâce waaw ci élégance boo xoolee jëmm ci rek nga xam ne Serigne tubaa rek la mën a doon. wallaahi <laughs> ca yooyu jamono. xam nga mhm. yàgg teewuru Serigne bi te benn nataalam benn nataalam rek lañ jot a gis. Mhm. le 11 mars 1918. mbégte mii Serigne am dafa am ñaari jàngat. Mhm. sëñ bi bi muy dugg ci pax mii dañ ko tegal esel mu dugg ngir teg xeer wi. tey su doon mën a sama sëriñ bëgg a dugg ci xe ci pax mi dama naan déedéet nañ tibb suuf jox ko mu ñaan waaye du dugg ci pax mi foofu sëriñ Tuubaa jàngale na fa modestie nataal bii bi muy julli laalaluñ ko dara ci suuf la la ko wane ci suuf la toog mhm. jullil boppam mag ñi toog ci ginnaaw mhm. loolu jàngale na modestie ñetteel bi mooy kuñ fi jox war ma ju doy nii jot ñi la wër ñëpp ku dul tubaab bi solul mbax na ci jamono jii ku dul sëñ tubaa amul. dëgg la ci période bii ñu toll. Mhm. moom rek boo xoolee ñu ko wër ak dégg ji ñu def ak niñ koy xoolee di ko yërndu boot seeni loxo tubaab bi di ko yërndu. Mhm. jooju doole sëñ tubaa ko amoon ci époque bi ba noppi nag mu bëgg nag. ndax dafa am lu mu doon ñaan. Mhm. ci géej gi. te bi mu koy ñaan mu metti bis bii nag dafa mel ni. dafa dajeeg tawféex yi. mu war a ñëw nag mbégte moomu feeñ. tey lépp luñ ne ñu ma nga bërëb sàngam mhm. loolaa waral ñuy dem Gabon mhm. sëñ Ablaye xam na ci dara mhm. loolaa waral ñuy dem Grand Bassam loolaa waral ñuy dem feneen tey buñ ne tubaab yi tey ku mel ni sëñ Xaadim moom jëfam ji jëfit lu ma ta xel waxut ne dañoo indi ngir nataal yi rek mbokki taalibe yi barkeel waaye dafa wàññi fanweeri million teg te bokkul ak lu jiitu lam defoon alaaji mbàkk yi muy jëruñ suñ tubaa toog fii ne joxe naa juróomi million man te bokkul ak lam defoon mm-hmm. moom mii ko def sax bëggul woon ñu wax ko mm-hmm. daf koo déey sëñ Ablaay ne joxe naa 30 rek mm-hmm. waaye loolu nañ ko bàyyi ci suuf waaye loolu mënul ñàkk te loolu sëñ tubaa rek ko man ci jamono juñ toll mooy sëriñ tubaa damay dégg sëñ Ablaay mii di ko wax ne xamul jamonoy crise xam nga nag li ñu ko dénk ñuy ñaanal sëñ Serigne Fanta Madi yàlla guddal fan may wallaay mm-hmm. waaye mbojj boo bëggee xam ni pep may mel da ngay fekkee bañ koy bees waaw mbo mbojj boo bëggee xam ni dugub ja toll fekkeel bañ koy bees dëgg la moom la xaadim ngom def waaw loolu moo moo waral li mu def dëgg la dëgg la dëgg la euh, mu nekk jàngat bu am solo mm-hmm. ndax nataal bii tey bi muy feeñ bokki taaliba yëpp ku ne da ngaa amoon yéeney jot ci mm-hmm. te bi biñ koy jaay prix biñ ko bi ko tubaab bi doon wecc ko. màcc juróom-benn téeméer la ko doon jaayee. màcc xamul sax xamul sax ay ay deux xamul sax kim juróom-benn téeméer. waaw waaye bi mu bi di riiree màcc dafa retiré photo bi. <laughs> parce que bi ma ko njëkkee jot téléphone man. màcc ko njëkkee jot téléphone man ci époque boobu. daf na ñi ma ñi ma seetaan ñu di ci wax. waaw madame Seck. Mam un million madame madame Seck Mam Ndéla xaritu maître Lika Ba voilà moom jënd na benn bu un million sëñ Sadex waaw alaaji Kalla ko jox suba muy indi ko sëñ Sadex moom du nagi dara muy nëbbatu tey jëf lu baax ku am solo waaw yow yaa bi ah. baax ju rëy jooju bi ma ko bi jot euh. dafa wax ne ñi ma seetaan ñuy wax ci photo bi mu ngi koy mettre ni ka ba un million muy deux millions yu jógee boor boobu boor booba macha allah wallaay Viviane de daa nelaw waaw moom dix millions la may jox sànni bool mu daanu mu yeewu <laughs> <laughs> moom dina joxe di millions. dina joxe macha allah incha allah. daf ne ñi ma ñi ma ñi ma ma ci jot seetaan ñuy ñuy ñuy ñu ciy waxtaan. Uh-huh. daan na dialecte la. Mm-hmm. dialecte lañuy ñuy làkk ma ne ko làkkoo ñu dialecte wolof la ñuy wax. Mm. mu ne man nag muy moom ak du moom man intéressé wu damay jaay samay photo bu ngeen bëggee jënd. Mm-hmm. waaye moom jaar nañu ci sa sëriñ bi. ne bu fekkoon ne am mbaxanaam képp a feeñ sax. Mm-hmm. murid daañu def lépp a jot ko. ca jamono ji sëñ Tuubaa di feeñ day nekk jamono gëm jamono crise boo xam ne ni crise gëm dafa am crise gëm ci la sëriñ bi di def intervention mm. génn ñi ngeen waxoon ne tey dañoo découragé tey lañ gën a jàpp sëriñ Touba mm. ndax lu feeñ ci moom loola taalibe yi daañ ko teg ci table ji léegi laa gis ku may message naan ma ana murid yi daan ne murid yi li sëriñ Touba rek ko ko man mm-hmm. mooy xooluñu jamono yu wét ak jamono yu wét mm. tey nataal bii nii lay ndam mooy ñu dajale un milliard yii tey ci guddi ñëw na Cheikh Mamadou Mountakha musée bi ngay defal sëriñ Touba bëgg barkeel yëpp yëpp dugg lu sa waaw waaw mbay mu nangu xol bu nangoo ko gën te xol yi nangul nañu sëriñ Touba loolu la Cheikh Abdoulaye laat waxoon yokkum jumaa ji Cheikh Abdoulaye bibliothèque bi Cheikh Abdoulaye wasaruut bi Cheikh Abdoulaye daare kaamil Cheikh Abdoulaye kër mag moom Cheikh Abdoulaye mais lii fii nu ko wootee eh, Pape Sadikh Pape Yàlla Murid Sadikh bi eh, lii rek la murid yi dañoo war a génne joxe waraan di joxe joxe milliard jooy teg ca njuga kebee ko fi jëkkee moo tax yii dafa am solo yii dafa am solo ku ci feeñ ci lu baax dootul nëbbu am na ku lay woode de waaw fi mu nekkee ñëpp a ngi woote a ngi woote euh, Fati ñu mm-hmm. fàttaliwaat téléspectateurs yi ak fu ngeen ñu mën a seetaanee mm-hmm. même bu ñu paree ci lii ñun ñëpp ci sunuy télé ku ci nekk ci programme bi nga yor mm-hmm. dañuy àggali liggéey bi voilà dañu koy àggali ci euh, ku ci nekk fa nga féete bu ko defee euh, ñun ñëpp ñu mën a euh, barkelu ci lu am solo lii ngeen di gis ci écran bi maam Fatou. waaw Pape Cheikh par communication bi lu am solo la ndax cible yi dañoo bari waaye ñoom ñëpp même objectif bi lañ am. mooy xam sëriñ bi waaw suñu am. xam nga soo soxna Fatou. waaw lii sëñ Ablaye Mbaye Pekh wax. Mhm. keroog bi Cheikh mun taxa di ñëw di nuyu si fii mbokki taalibe yi fii ci mhm. Masalik. Mhm. alaaji mbàkk yu dafa wàññi walisu un milliard. jox ko sëñ bi àddi waxuma sec waxuma kayit dañ koo yanu. mu ne ko murit yii ñoo la bëgg a siyaare lii nag mbàkke danoo bëgg nga tàbbal na ko ci liggéey bi. Mhm. defal lëb liggéey ba mu jekk. di la nga di ngay siyaare si ñëwoon waat milliard loolu wane na ne pas-pasu murit yi. du xaalis moom moo leen di boole. Mhm. moo tax jëwriñ ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaay boobu. ndax loolu bon exemple la. mooy lii sëñ xaadim ngoom def te loolu mooy ab taalibe mm-hmm. taalibe li muy am damay dégg mu ne li li li am solo mooy egg mm-hmm. te pour nga egg si xibra dañu ko tekkil mooy jëf jël rek jëf jël nag mooy lii